wa in istaanaka anta wa in mar wa in marida xutta wa in ihtaaja axtayta wa in iftaxara xutta alayhi wa in asaabahu xayrun xannayta wa in asaabahu musibatun xassayta wa ida maata tabaxta janaasatahu wala tastatilu alayhi bilbina fa taxjubu anhu riya illa bi idni wala tuusi bi réexi xidrika illa an taxrifa la wa in istarayta faakihatan fa ahdi la wa in lam tafal fa adxilha sirran wala tuxrij biha waladuka li yuxiisa biha walada rawahu tabaraani yu allahuma ayidna ala rihaayati xuquqil jaar ginnaaw biñ jullee ci yonant bi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñi ngi nekkoon ba tey ci li nga xam ne mooy jikko ndax niñ ko waxe woon suñ tubaa leeraloon nañ ne doomu aadama day pas-pasam mooy ruuwam jëf yi muy jëful ci lislaam nag mooy li nga xam ne mooy jëmmam yaakaar naa nag ruu ak jëmmu bu amee moom képp te amul mbubb mu mum sol rafetaay ba dana des li li nga xam ne nag mooy tax mu rafet wala mbubb mi nga xam ne moom la war a sol mooy jikko jikko moomu nag dafa doon loo xam ne da composé lu bëree bëri ci mbub mooy mooy composé mbub mi nga xam ne moom la jullit bi war a sol mu mu nekk ci ay couleurs yu bëri yoo xam ne doonte couleurs yu bëri nan itam taxut mu doon loo xam ne dafa xàññaaral wala mu ñaaw ba tax mu nee su sol waaye li nga xam ne saa yu ko solee rek ak li couleurs yooyu bari bari loolay loolay gën a indi rafetaayam ñu waxtaane woon nag ne jullit dafa war a nekk koo xam ne ku wóor la dafa war a nekk yitam ku ku dëggu dafa war a nekk ab muñkat dafa war a nekk itam ku am sago tey nag ñu ñëw ci beneen wàll mooy ji ko jullit dafa war a nekk koo xam ne dafa day doon ku neex a dëkkal ndax dëkkandoo dafa doon loo xam ne lu rëy rëy la li ñu koy won nag mooy yonente bi sallallahu alayhi wa dafa dafa da ci loo hadis boo xam ne Aysa Sayyidna Aysa Sayyidatuna Aysa moo na ko nettali dafa wax ne suñ borom day damay dénk naa ma jàppal sa dëkkandoo bi te téye ko te taxaw te doxaleeg moom doxalin wu rafet ba ma jàpp ne dëkkandoo koy yëmatul ci dëkkandoo waaye dafa dafa mujj doon mbokk moo xam ne su ma fi yàlla jële woon itam dana bokk ñi nga xam ne ñi may doon la loolu nag ba tey doona li am na li ñuy wonaat li nga xam ne mooy tekki ne dëkkandoo ak dëkkandoo lu mat a bàyyi xel la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñetti yoon ne mënumaa gëm ne mukk kii ku gëm yàlla la wax ko ñetti yoon ñu wax ko ne kan mooy ki ngay wax ki nga xam ne mënoo gëm ne gëm yàlla la mu ne mooy ki nga xam ne saa yu ko ay dëkkandoom giseen gisee seen fit rët mooy ki nga xam ne saa yu ko seen su koy dëkkandoom gisee rek seen seen seen seen ñu daal ñu doon ñoo xam ne dañuy daal di rët kon kooku ki nga xam dëkkandoo bi nga xam ne fa saa yu ko ay dëkkandoom gisee seen xel seenu fit rët nañ xam ne dëkkandoo la boo xam ne yonent bi wane na ne ku yon mënta gëm mukk ne ku gëm yàlla la li nga xam ne nag moo ni won ne dëkkandoo ba tey lu am solo la mooy lislaam buy wax ak dëkkandoo du ca xool ndax kii yéen bokk doon ay jullit wala yéen bokk ak bokk waaye day xool rek ne doomu aadama nga dëkkal bu ko defee nag loolu moo tax ba mu joxe ay melokaan ci ni nga xam ne moom nga dëkkandoo yi mënuñoo génn ñett ñii ki nga xam ne xëy na bokku leen pas-pas mooy doonutub jullit ak ki nga xam ne doon na jullit waaye da ngeen bokk ngeen dëkk doon na sa dëkkandoo boole ci di sa mbokk ngeen doon dëkkandoo mu ne nag ki nga xam ne xëy na bokku leen pas-pas te mu doon sa dëkkandoo am na àq joo xam ne am na ko ci yow mooy àq dëkkandoo ki nga xam ne itam da nga da ngeen bokk pas-pas mooy yéen a bokk di jullit ba noppi dëkkandoo doon ay dëkkandoo am na ñaari àq ci yow ki nga dafa doon koo xam ne jullit la di sa mbokk ba noppi ngeen dëkk ñu doon ay dëkkandoo nee na kooku am na ñetti àq ci yow ndax mu ñëw na ci yow ñëw na ci moom na nga ko jéem a ndokkeel bu fekkee ne yàlla dogal na mujj yàlla jëlee ko fii itam na nga bokk ci ñi nga xam ne ñëw koy gunge daal dina itam bu la yàlla manee gan ba nga xam ne yow xëy na man ngaa tabax ab étage te moom mu ngi dëkk ci néegub sàkket ci sa wet nee na sañoo jekki-jekki rek yëkkati sa sa étage ni mu la neexee waaye da ngaa war a diisoog moom ñaan ko ñaan ko ndigal ba may la ko nga soog a yëkkati sa itaas waaye sa ñoo jékki-jékki rek yëkkati sa itaas te bañ a bàyyi xel li nga moom mi nga xam ne yàlla xëy na defu defal ko loolu. maanaam nekk koo xam ne itam ku am sago la da ca doon ku neex a dëkkal yaakaar naa jàmm rek mooy xew. bu fekkee ne topp nañ melokaan yi nga xam ne moom lañu lislaam jox te bëgg ñu su bàyyi ko xel te waxul nag ne dëkkandoo ba nang ca bàyyi na doon rek sa sa mbokkum jullit waaye ku man di doon rek am na ay àq yoo xam ne moom lañ wax léegi nii da ko war a bàyyi seen diggante kon yàlla nañu suñ borom dimbaleel boppam ba ñu doon ñoo xam ne danañ sàmm ak aqi dëkkandoo ndax comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àgg na ci wax ne munta gëm mukk ne kii ab la te waxu ko benn yoon waaye ñetti yoon la ko wax te bañ ko laajee ne ko kooka mooy kan mu ne mooy ki nga xam ne ni rët kooku kon mu doon loo xam ne kon mu dëkkandoo lu mat a bàyyi xel la lu mat a sàmm la yan nañu suñ borom taxawul boppam yan nañu borom suñ borom sàmmal boppam ba ñuy bàyyi ak ak yooyu ñu bàyyi ko xel ndax yaakaar naa ne melokaan yi nga xam ne mooy melokaan yi jikko yi nga xam ne moom la lislaam joxe bu fekkoon ne fexe nañ ba mu nekk ci ñun yaakaar naa ne jàmm rek mooy xew aw yiw rek am suñ diggante ak jàppalante rek mooy am suñu diggante ak dimbalante rek mooy nekk suñu diggante. ñoom dimbale nag ba ñuy tënku ci jàng yi nga xam jàngale yi nga xam ne moom lañu suñu borom jàngal ndax loolu moo nuy indil jàmm moo nuy indil itam dund gu neex moo nuy indil itam noflaayu àdduna te daje jàmm noflaayu àdduna boobee nga xam ne ñu ngi ko am nañ ko te yàlla rek tax bu ëllëgee itam noflaay bu ko raw la ñuy am kon yàlla nañu suñu borom taxawul boppam. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تمحو بها كل ما صدر منا مما يخالف رضاك من وقت ولادتنا إلى وفاتنا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 وصحبه وسلم خليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمال بلا آفة ولا قدر قبل الهمة وعند وصولها وبعد وصولها أبدا آمين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولينا فيمن توليت واكفنا شر ما قضيت innaka taqdi wala yuqda alayka allahuma biaqwatilaahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi wa sallama wa baraka salatan wa salaaman wa barakatan tarda bi an xabdika alxadim ridan la suxta baada wa kun lahu bi fadlika alazim wa bi karimika ya baaxi ya xadim bila afatin wala kadirin baynahu wa bayna ahad waxfir li kulli man taxallaqa bihi min almuslimina walmuslimati walmuminina walmuminati alaxyaai minhum wal amwaat allahumma allahumma ahdina fi allahumma inna nasaluka alhuda waltuqa walxafaafa walxina allahumma inna nasaluka alhuda waltuqa walxafaafa walxina allahumma ainna ala dikrika wa shukrika wa husni ibadatika allahumma axsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min xasi dunia wa athaabi alaxira allahumma arhamna bi tarki almaasi kulliha ma abxaytana abada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 walhamdulillahi rabbil alamin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 laysa lahum taamun illa min darihin la yusminu wala yuxni min juu wujuhu yawmaysin naaimatun li saxiha radiya fi jannatin aliya la tasmahu fiha laaxiya fiha aynun jaariya fiha surrun marfuatun wa akwaabun mawduca wa namaariqu masfuufatun wa saraabiyu mabsuusa allahu akbar allahu akbar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 inna ilayna iyaabahum summa inna alayna xisaabahum allahu akbar allahu akbar samia allahu liman hamida rabbana walaka alhamd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 allahu akbar allah asalaamualeykum. asalaamualeykum.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 maa ahbabtahu waxtartahu wa raditahu lahu fi lxaali walmaal bila afatin wala kadarin qabla alhibati wa inda wusuliha wa baada wusuliha abadan amin ya rabbal alamin allahuma ainna ala dikrika wa sukrika wa husni ibadatika allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min xasyi dunya wa asabi alaxira allahuma arhamna bi tarki almaasi kulliha ma abqaytana abada